gan gi Pape Amadou Fall journaliste analyste politique doyen ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM. doyen dégg-dégg bi neexul de. dégg bi neexul waaw da nga da nga def ay écouteurs. non def écouteur kon kon c'est c'est. Euh, waaw kon euh, ñu ngi xool loolu du côté technique euh, doyen ñu tàmbali waxtaan wi ak assemblée nationale mi nga xam ne tey jii war na doxal li tukkee ci dialogue bi hmm, daal di kay kon wote bokk na ci li ci gën a fës modification constitution article quatre-vingt-sept bi war a may président Macky Sall bu sottee mu mën a seeyal assemblée nationale heure bu ko neexee est-ce que mën nañoo jàpp ne dafa am ay ndëgg sarax yu làqu ci ginnaaw coppite boobu. dinañ ne ñi nga xam ne seen xam-xam màcc nañu ci wàll bi nga xam ne moom mooy euh, yoon doxalinu assemblée ñooñ day yëkkati nañ li nga xam ne moom mooy seen njàqare ci fànn boobu mel ni nga xam ne moom mooy doyen Doudou Wade euh, fësal na kàddoom bu noor ne lii moom bu ko defee day daal di doon musiba ci li nga xam ne moom mooy assemblée la ko waral mooy ca la mu jàpp moom mooy nee Euh, dafa am ci li nga xam ne moom mooy doxalinu Sénégal lu jar a ràññee. Hmm. président de la république dafa am cëru dogal. ñi nga xam ne ñoom ñooy waa assemblée nationale ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci li nga xam ne moom mooy loi waaw ak nag euh, beneen instance ba nga xam ne moom mooy euh, affaire justice kon président président de la république dafa am foo xam ne fa la cëram war mën a yem. Mm-hmm. ci doxalin. assemblée nationale moom it nekk ci li nga xam ne moom mooy doxalinam. su fekke nag dañoo may président de la république saa ko neexee. su fekkee saa euh, bu mu seetloo ne yëf yi dafa am fu muy jéng jëm wala boo déglootuñ ko ci da nga xam ne moom la ko bëggee mu ne tax sa assemblée mu ne loi bi lool lay mm-hmm. te loolu war nañ koo mën a ba Euh, du saa bu neexee président de la république mu nekk sa assemblée ndax bu ko neexee juróomi fan yu ne mu def ko. Mm. wala fukki yu ne mu def ko mais taxawaay bi nga xam ne moom lañu ñu séntu moom mooy lu mu néew néew ñaari at yu ne. waaw xëy na mu war naa mën a xool ne assemblée bi ni muy doxee ñu tas waaye fii mu toll nii ñu ko mayee loolu li nga xam ne moom mooy taxawaay bi dina doon loo xam lu lu doy war la. Mm. est-ce que loolu. est que loolu indiwul lënt-lënt ci séparation des pouvoirs ndax pouvoir exécutif dafa amee mais législatif aussi euh, pouvoir la bu bu mat sëkk. waaw xam nga ndeete am na ñoo xam ne jàpp nañ ne pouvoir législatif bi muy assemblée. Hmm. Euh, dafa mës tënku. ci li nga xam ne moom mooy dox ñun Sénégal ci kàddu ki nga xam ne moom mooy exécutif bi muy président de République ndax. am na ci ñoo xam ne dañ lay wax ne président de la république moo ma fal hmm. loolu du ci réew mi mais li ëpp solo moom mooy dayo bi nga xam ne moom la ñu war a ñoom xam ne ñoom ñooy député yi bay wax euh, li war a jaadu li war a doxal te taaral li nga xam ne moom mooy réew ñu war caa dox ci li nga xam ne noonu lañ ko war a kon député warta mën a nasaxal li nga xam ne moom mooy boppam ba nasaxal li nga xam ne moom mooy penc mi nga xam ne moom moo war a dogal kon euh, ku ci nekk sa kër war nga ko mën a taaral doxale ko président de la république sanca ñam mu teggeeku ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale député xam ni que askan wi moo leen tal hmm. alors doyen est que mënuñu njortu tamit ne assemblée nationale bi ni mu tëggoo tey bokk na ci li tax xëy na président de la république bëgg a am sañ-sañu tas ko heure bu ne ndax doole yi dañoo xaw a yem muy daanaka sax guléet euh, bu ñu waree woote dara itam seen fiti du dal euh, bépp xeetu kaaraange bu ñu mën a indi daana ko indi ngir mu leer leen ne wot bi dana demee ni ñu ko bëggee est-ce que loolu taxul mu bëgg a euh, mën koo tas saa su ne waaw xam nga tey dañuy taxaw ci ne bu tànnee ba yëf yi demee na nga xam ne moom la demee ca assemblée nationale loolu moom mooy bëgg-bëggu askan bi ñii juróom-ñett fukk ak ñett ñëlee juróom-ñett fukk ak benn defe naa noonu la mm-hmm. ci wàll bi nga xam ne moom mooy taxawaay bi bu fekkoon ni ki nga xam ne moom mooy député bii di Pape Diop nga xam ne sax moom dafa mujj député ne mm-hmm. doonoon ancien euh, président wu Sénat Euh, kilifa gu mag bu newul woon damay fekki ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Benno euh, Bokk Yaakaar lambay mënoon naa ñaaw hmm. ndax euh, kon boo saglu ku jigi dina jël wala mu am taxawaay boo xam ni président de la république du jëlati sañ-sañ ci li nga xam ne moom mooy réew mi ndax day tënku ci kàddu gi nga xam ne moom mooy kujje gi mooy opposition bi mm, combat moom moo équilibré mm. a ah, léegi nag ci wàllu nga xam ne moom mooy taxawaay bi euh, bu ñu gisee li nga xam ne moom mooy loolu ci wàllu nga xam ne moom mooy nekkin dinañ ne rek a ah, euh, président de la euh, yoraat na doole ci wàllu nga xam ne moom mooy liggéey bi mm. ba wàllu nga xam ne moom moo eh, ci ay sañ-sañam mun na koo doxale ñoo mooy laaj bi. Mhm. wala. waaw waaw euh, ñu ñu avancé doyen wax ci wot gi war a am tey itam euh, kaabu Khalifa Sall ak euh, Karim Wade yaakaar nga mu jàll comme lettre à la poste bu ñu gisee xaajaloo bi ñuy ragal diggante député Yewwi yi ak ñi nga xam ne wala député taxaw yi ak Pastef nga xam ne ñoo bokk nekk Yewwi waaye diggante bi taxatu ko rattax noonu yaakaaroo mu am gàllankoor ci kaawu xalifa ak Karim. xam nga sax damay weesu sax ñi nga xam ne moom mooy ñooñu ak li nga xam ne moom mooy seen discours wala li nga xam ne moom mooy seen fasin ndax it euh, te nga ci dégg ay député yeneen yoo xam ne dañu naan euh, ku luubal alalu réew ñu bëgg ndax tey dañ ne dañoo bëgg ma tudd baatu baat booba ndax Euh, miin nañ ko ci réew mi dañoo bëgg gis ñu taxawee mburoog soow waaw xalifa daf ne li am solo pour man moom mooy naa bokk hmm. ñeew farak moom ci wàllu wi nga xam ni moom mooy ay député ñoom ci wàllu wi xam ni moom mooy gis-gis noonu euh, lañu bëggee kon dinañ def seen kéem tolluwaay kattan ñoom ci seen wàll pour que lu jëm ci wàllu yi nga xam ne moom mooy ñu jàllale loi bi mën a may xalifa Sall mu bokk dana ci taxaw hmm. waa kër euh, euh, Ablaye Wade muy PDS ñoom it am nañu cër bu am solo ci li nga xam ne moom mooy assemblée nationale bi du ma dugg ci yow ak yeewi hmm. damay génn ci cadre boobu parce que assemblée nationale yow ak yeewi amu d'accord li nga xam ne moom fa am solo moom mooy baatu député bu nekk ci wàll bi nga xam ne moom mooy taxawaay hmm. ak na nga xam ne moom la dëkkee wala la nga xam ne moom lañ ko wax ne ko boo demee lii la ñu bëgg nga taxawee fa parce que ñoom it dañoo ñëw ci tur li nga xam ne moom mooy ay parti la neexee nag nga ni sax ay tujje hmm. euh, lu mel ni yow ak yow mais loolu pour man amul solo tey baatu ku nekk moom mooy doon la nga moom mooy li am solo hmm. bari na ay député yoo xam ne même bu fekkee dañoo bokk ci yow wala dañoo bokk ci Yewwi wala ñu bokk ci li nga xam ne moom mooy Benno seen taxawaay mooy ah, Karim Wade def na fi eh, eh, eh, loo nga xam ne daan nañ ko ci wàllu nga xam ne moom mooy yoon ñu ngi koy topp xam ne dañ moom la amee réew mm. ci wàllu nga xam ne moom mooy ay yoon loolu lëñ lëñbët nañ ko lëñbëtaat ko ba war naa mën a bokk moom ki nga xam ne moom mooy Karim Wade Khalifa Sall moom nee nañ depuis deux mille vingt et un éligible na war naa mën a bokk ci élection buy mën a am ci réew mi mais loolu lépp dañuy taxaw tey lëñbët ko am na ñoo xam ne nee nañ dara leerul ci li xam ne moom mooy seen bopp kon mënuñoo bàyyi loola mu jàll léegi nag ci wàllu woowu la ñuy xool. kon euh, kon mën nañ na ñaari cas yi rek léegul. en tout cas fañ ko yóbbu tey ke fa nga xam ne moom mooy penc ma euh, coow li dina bari parce que bu fekkee dañuy indi ay loi ak i règlement pour wane ne war nañ koo mën a jàllale faaw ñu toj ko li nga xam ne moom mooy euh, yenn di ci li nga xam ne moom mooy boobu askan wi it ñoom ci li nga xam ne moom mooy fànn boobu parce que am na ci ay député yoo nga xam ne sax yëpp ci nekk seen kàddu déjà su fekkee euh, ci ay biir euh, euh, maanaam yibu ci kàddu doxalin pour rek ne dañoo bëgg neexal kaawu Khalifa Sall dañoo bëgg neexal ñi nga xam ne moom mooy kaawu Karim Wade fan la ñu bëgg a teg ndem mi ëllëgu Sénégal nan lay demee ëllëgu Sénégal jooju ñu gën a bàyyi xel. d'accord alors doyen nooy séentoo tànneef gi ci benn bokk yaakaar ñeel seen candidat président Macky Sall ba tey ñu di ko déglu est que lu nar a yomb la ci moom bu ñu xoolee ñi jot a samp seen dënd nekk ci APR bennoo itam ñeneen ci seen ay farandoo ñu mel ni waa parti socialiste tàmbali di wone seen bëgg-bëggu dem ci élection yooyu ak seen cëggal guy euh, nooy séentoo bennoo ci cappaandaw la. damay jël euh, écurie lamb. Hmm. boo xam ni danga naan. ah ñii nekk tey de ma yore leen ku ci nekk ab na cër boo xam ne war ngaa koo mën a taxawee sama ëllëg ndax président Macky Sall bokkatul day bay buy bay ñu ne ko yow yaay diis na ndax ñi ko mën a wuti Sénégal bari na ñi ko mën a wuti ci biir fi nga xam ne moom mooy benn Bokk Yaakaar yi mu jiitu bari na kon du benn du ñaar du ñett du ñeent du juróom sax ba fukk bu la neexee ci wàllu nga xam ne moom mooy wax mm. waaye benn ba ñëpp ànd ci ak ay diis yaakaar naa ni dana génne kenn ne ko yow de la ñu li nga xam ne mooy suñu doole ak suñu yaakaar def ca nag suñu kéem lay kàttan waaye war nañoo mën a séntu ne ci biir waxtaanu nekk. kenn kooku nga xam ne moom la ñuy joxoñ ne ko yow la ñuy jox doole yépp mu am ñaar ba ñett yoo xam ne ñoom dinañu fàq ne ñun dañ dawal suñu bopp ñooñu nag xëy na ñuy fësal ay jumtuwaay yoo xam ne moom lañ leen di jàppale politiquement mm-hmm. wala li jëm ci wàllu yi nga xam ne moom mooy xaalis boo xam ne dañ leen dinañ leen ko jàppale parce que xaalis moom de façon kenn du ko tudd mm-hmm. waaye waaye dañuy wax rek parti bi wala coalition bi mi ngi ci ginnaaw diw ki lay jàppale ña ca des nag mais ñun ñu ngi ñu ngi daal li nga xam ne moom euh, bu jafe-jafe ja la nekk fi ñu jeexal ak taxawaayu Ousmane Sonko mi nga xam ni samedi bi gouverneur aaye meeting d'investiture bi forcé wul na mu ko daan defee dafa wax gaay mi nañ def leneen muy tëgg ay bool ak ñoom seen euh, ndax mën nañoo jàpp ni dafa deltu ginnaaw ci gatsa gatsa gim doon woote. ak lu mu ko mën a jural xay na. gat sa gat sa moo wartu woon a jib ci réew mi ndax gat sa gat sa boo déggee baat ci Sénégal teggi newul réew mënoo jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy état bi jël lépp moo nga xam ne dafay institution nga ne dama koy nasaxal parce que baat ya xam ne moom la koy teg léete dina ne waaw magistrat yi xam nañu si bu baax Euh, armée bi am na ci ñu baax et cetera mais ca kaddu ba ak doxalin ba maanaam maanaam donc communication ba ca lu bari euh, yàqoo ci la nga xam ne moom mooy doxalin bi mais te nag mbooloo ko topp loolu moom euh, yàlla yàlla may ko mais taaral kaddu day doon loo xam ni ci wàllu nga xam ne moom mooy politique dafa am loo xam ne moom amee ci Sénégal te mënoo yeewu benn bis rek. Fatou Ngom ne lépp dama koy dama dama koy dama koy dama koy soppi mm-hmm. Sénégalais yi dina ñu mel ñu wala dina ñu mel maintenant doxalin bi mun di doon noom mm-hmm. moo tax tey fii nga xam ne fa la teg mais ah waaw gouverneur nee na danaa ko déglu mais gouverneur ñu war a jox cër la mm-hmm. deetee am na noonu xam ne war nañu xeex ak moom comme ni ñuy xeexee président de la république comme ni ñuy xeexee nga nekk ci assemblée nationale pour que yenn doxalin ñu du mën a di euh, ci li xam ne moom mooy réew mi waaye nag su fekkee foo wootee fitna ak kàddu fitna te kàddoom yi mu am na ay kàddu fitna te biir ba tey kon doxalin bi tey dinañ ne ah alhamdulilah rabbil alamin def na jéego waaye jéego boobu bu fekkee war na ko mën a gën a yokk hmm. ba euh, waxtaanam ak euh, Sénégal déggoo gi nga xam ne déggo moom mooy ci wax di jëm nga xam ne moom mooy institution yi mu mën koo euh, gën a taaral loolu rek euh, yaakaar naa ni lu ko lu ko war a mën a dig la dig ci ne Sénégal danañ ko gën a a xel ci wàllu bi nga moom mooy taxawaay waaye gat sa gat sa moom. Hmm. jëmul kër du jur jàmm jërëjëf doyen Pape Amadou Fall ñu ngi lay gërëm journaliste analyste politique amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi tey. Euh, di la ñaanal kenn dal ak jàmm yaa ngi ñu doon déglu ñëpp. Euh, ñu di leen ñaanal kenn la jàmm di nuyu seen auditeurs yi nga xam ne yi ñoom ñëpp ñoo ñu doon déglu mm. ma leen di jéggalu ndax ba ñuy tàmbalee euh, jotuñu yoon jàll ci nuyoo bi jërëjëf doyen ñu ngi lay gërëm